mbokk internet yi suivre euh, Sunugal 24 ak euh, Guédiawaye info tey ñu ngi ci weeru safar bi ba léegi mu nekk tey fii ci kër Adja Waré Sarr ku wax Adja Waré saar wax ko guy gi ndax ku wax guy gi wax Adja Waré Sarr moom nëbbutu ko waaw day wax ne ku ma nar leneen te bàyyiwuma ak Adja Waré Sarr yàlla bu mu am. kon nag euh, ñu ngi ak guy gi vraiment mu ñëw ñu ànd ceeg waa Sunugal 24 macha allah war a seq ak guy gi waxtaan ci weeru safar bi tey Adja Waré Sarr di barkilu ci bis bi ndax bisu sëñ Bàmba la kon guy gi ñu bàyyi nga nuyoo. Ah, d' abord gannaaw ñi lay ñi lay fay di wax onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonte bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Asek borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg tiwal di nuyu sama xarit général maam Cheikh Ahmed Tidiane nuyu àdduna bi yëpp nuyu suma papa ak yaay nuyu suma grand frère Modou Babacar nuyu ki nga xam ne mooy suma kilifa comme ni mu koy waxee suma yaay Wara Sarr suma grand frère Nas Thiama suma xarit suma lépp nuyu suma waa gàlla yëpp ma kenn sama gars yi ñoom Bolo John Sena Pape Mam Am xam nga ñoom sama rak 10 000 problème xam nga ñi bëggee guy gi vraiment waa ASECNA waa Comico fii suma baas la defe naa ni grand béykat xam na ci dara fii laa jóge dem dem ASECNA kon su ma ñëwee tey fii ñu fekk suma yaay Wally Sarr muy def safar sa ferte pour toi man loolu suma ferte la. kon defe naa amul porte ouverture boo xam naa ci am lu ma ci naan compresse laa ci koñ bi wala waaw sama suma ferte laal tay bis bi daal ñuy mhm. ñëpp gërëm ñëpp ku wax euh, Adja Wara Sarr wax sëñ Abdou Karim yow ñëpp xam nañ léegi sëñ Abdou Karim ñu mel ak yow mhm. Adja Wara Sarr di saf safar tey nga ñëw teew lan ban yëg nga am ci moom tey waaw di nuyu suma benn grand frère Abdoul Mangane bu nekk Dubaay ak Mouhamed Mangane Fahim Mangane bi yëpp suma xarit la suma sëriñ la suma kilifa la di nuyu Cheikh Abdoulaye Diop borom xaas sa la suma xarit la di nuyu sëñ Modou Seye borom toofeex ak sëñ Seexuna Rakab ak sëñ Soxna Anta Seye Cheikh Abdou Karim Sénégal gi yëpp xam nañ ni mel des fois dama koy tooñ sax ma ne ko sëñ bi léegi comme que léegi man wax naa wax naa ba ñëpp di njëkkante Cheikh Abdou Karim ma léegi reculer naa loolu tubaab bi nag il faut reculer pour déermer sote mais man il faut reculer pour déermer dem feneen laay def ci sëñ galas laay jëm mais day rey ba bëgg dee suma xarit la man kenn kenn kenn ku ne xam ne ni taalibi Cheikh Ahmad Tidiane la taalibi Cheikh Thiénaba la taalibi Serigne Assek borom digal la mais oma porte arrière ci kër diine yi ñëpp xam nañ ko ci man muy Laayeen Tiwaawan Njaasaan sérif yi kenn ku ne boo ma gisee rek may bëggal sa bopp parce que tamit liñ soxla man laa leen di jox respect wan leen dëggu te teewul am nga wasila am nga foo bokk loolu mooy àdduna mais li des après yow yaa koy mottali mooy colère gi ànd bi respet bi jox leen liñ moom parce que seen maam moo ko liggéey waaw bañ a fi nekk ci kaw nga nekk fa fi nekk suuf nga tooganoo ñoom wàcc sa bopp loolu la xam naa moo may loolu li ma am ci ñoom waaw di suma benn boy nag dere bu baax suma waaye la suma xar la ñu war a ànd nii mais tamit comme moom te mi ngi ciy beneen côté bi pour safar tey suba dañ ko tuddee benn final xam naa moo tax ñëwul kon ñu bokk nekkandoo ci safar gi mais kon di ngeen ko gis kon maa ngi moom ñu nekkandoo nii. waaye safar gi grand bi yow safar gi sax ci nga safar gi moom safar gi moom comme que sëñ Bamba moom li mu wax dañ ciy dañ ciy jaar duñ ci sax insisté dañ ciy jaar jaar ci war a lii rek yow ci nga lii nag dara gënu koo rafet. vraiment yow j'affecte pour toi bañ xamante ba tey ay ñagas ñagas amoon na pour ñàkk xam ne grand bi lii grand bi lii. mais biñ déggante benn bis ba tey xam naa yaay kan xam naa tamit ban genre nga man noonu lay dundee xam naa ban nit nga ba maa la ibil sama porte ne la man amul porte ouverte ci man yaa a beaucoup d'ouvrir porte boo xam ne war ngaa war nga maa soxla kon loolu léegi lu ma gis ci yow la kon defe naa ne loolu liggéey bu rafet la kon defe naa ne man du ma wax loo xam ne mun góoma ko kon defe naa ne sawar gi kon cega sawar gi cega boo ko déggee mooy lii dara gënu koo rëy teel indi sa caméraman Anda gua waa sunu sunu gal 24 mu rafet trop ñu tok ni di defando dara gën a góore loolu cër la kon tawer gi dire ak ci nga ci nga tan mëna amane sax man woowuma la wala nga déggante ak kene ko xam ne la wo wala nga déggee ko fenen kon loolu man ça va ma plaisir bo xamni ni lu quoi ya ça va ma plaisir luma ma quoi. Eh, am amna lu am solo bo bëgg tamit nga wax ci moy ban message ngay setai. tay chauffeur ci nga xamni Shak ñu ngi dem Touba chaque année accident day bëri ban message nga leen lancer pour ñu and dal ba ñi dem ci jamm ñëwaat ci jamm waaw grand Euh, euh, c'est dawal man chauffeur la dawal dafa am yoon mais tey ni gars di joxe permis mu njëkkul jaar yoon ni gars yi di jàngee métier mu njëkkul jaar yoon ñun dañ daan jàngi métier di daw Touba Dakar pendant huit ans dem Casamance Fouta Bakel Tereji fu fu ne jaar nañ fa daw lang ñun li ñu daan xintewoo soxla wuñ xaalis li daan xintewoo na chauffeur bi gaare rek bu client yi wàcc rek bañ jox la oto bi nga toog ci kanam ñun la defal ni defal ni defal ni nga koy dawal di ko dawal nga teg sa sa sa sa passement ci yoon nag ñaari kot ñaari conduire da koy teg ci yoon amul arrangement amul dara loolu boo koy defee rek boo nekkee ci oto nga xam oto bi lim laaj ak lim laajul mais jékki-jékki ku mel ni grand bégaay musul def première fu mu jëm jékki-jékki ñu jox ko benn parabro mu nekk fi di talax talax talax pono ba ne mbéll mu defe ni daa am lu koy gestu ci ginnaaw mu gees oto bi day jaaxaan noonu la demee doo xam mais bu doon tey da da jàng oto oto bi ne mbéll boo ko nee boo ko téye di xam ni nga ko maîtriser tey bu nit dee traversé wala bëy wala xar lu mu doon seen nga ko avant muy ñëw parce que bët jàpp nañu bët nii rek mooy dawal nii non nii dawalul flan ñooy dawal flan bët yi ñooy dawal tey ji mën nga xool fii rek mais na luy ñëw bu yëg sóoraale ko mais mën nga xool fii tey am na lu nekk fi ci digg nga bàyyi ko jékki-jékki di gees fee da mbëkk ak boole koog dox loo xam ne su oto amul sécurité oto bi yaa ngi war a dox cent wala quatre-vingt-dix nga bokk yóbbu ba cent nangam léegi da nga dépasse sécurité bi ku mel ne sama classe gi nii xam nga di dox di dox di dox dox boo xam mënoo maîtriser oto bi bu oto bi pneu bi toojee ñëpp ngay rey yàlla moo ciy def sutura loolu moo tax savoor yi des fois dafa am yoo xam ci biir yu bëri mënoo ko expliquer ba expliquer ñu day xam-xam lu wala dafa xam nangam te loolu moo am mooy réel bi yàlla nag moo moo moom yoon moom jàmm bi di ñaan yàlla rek ñu màggal ci jàmm ak salaam yàlla def ci poos ci dara luñ fay séntu muy ñaan muy ziar bi ñuy ziar yi kenn ku ne sa sëriñ yàlla nangu ziar bi nangu ñaan bi parce que màgg màggal moom loolu la boo demee yàlla nangu lépp def ko sottiwaat ko ci réew mi comme sii yi sax commencé naa feeñ comme li amoon keroog kolobaan. nga xam ne gëj nañu gisante gisante kon loolu defe naa loolu sii ñu feeñ la ci lu baax. yàlla na yàlla continuer loolu yàlla def ci réew mi jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj muy begaay muy man muy ku mën a doon li ngay ñaan mooy jàmm sa xol boo amul jàmm sa xol boo xëyee doo am jàmm jàmm nga mën a am xëy firi yaatu nekk ci leneen loo xam ne yow da ngay xam ne yow jàmm daal boo amul doo am tey ji boo yor ay milliards amoo jàmm tey boo demee hôpital fu mel ne Dantec wala principal da ngay gis koo xam ne poche bi am na ay 10 millions ci nekk wala 20 millions te buy tuur ndox fa lay tuuree wala buy lekk beneen du rees wala tey mi ci yeneen tànk yi dagg nañ ay détails yow bul yàlla suturaalee yow nekkoo ci loolu nga am jàmm loolu looy waxati ngay santaat yàlla rek yàlla gën laa suturaal te nga nekkaat ci bon bon condition boo xam ne yow da xam ne yow mii yaa ngi ci bon bonne voie mais boo bëggee xëy dugal sa xol bi loo xam ne xaju ci foo jëm nit ki yeneen nit ki am jàmm nga am jàmm soo ko yéenul jàmm doo am jàmm ñi nga àndal du am jàmm te ñi nga àndal yaa leen tardel waaw ndax ñàkk yéene gi nit ki jàmm moo tax yaay tardel ñi nga àndal waaw moo tax nag yéeneente jàmm daa am solo man de wax yàlla yéen naa jàpp ñëpp jàmm ci kaw suuf daal képp koo xam ne man guy gi yéen naa lu bon man man man naa tooy xep xep xep yow nga doog a tooy képp ku mu yéene lu baax yow na nga ci tooy xep man ma doog cee tooy di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla safar gi nag lépp luñ fi ñaan rek lépp luñ fi def rek yàlla ko yàlla ful mu nekk atum naataange ci at mi ci ñëpp nag yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def di kontaan ci yéen trop vraiment ci réservation bi parce que réservation bi comme ni ma ko waxoon rek cër la man jekk-jekk gis leen rek loolu parce que journaliste ak mbër ñoo ànd surtout journaliste boo xam ni dafa jox cër mbër mi te man xam naa ci dara jox cër mbër mooy da nga koy laaj laaju respect laaj ko laaju yéene am na ñoo xam dañ lay laaj mais laaju jaxase saytaane la ñuy laaj laaju jaxase influencé saytaane te loolu baaxul léeg ma jàmm ne ay nit sax bañ xaw a nekk ay gaan mais ay détails quoi yàlla yàlla def jàmm asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne ñu ngi siiwu tey suñu gaal 24 ak Guédiawaye info tey ba léegi ñu naa leen ni ko defee saa su ne tey ñu ngi fii safaru maire Wari Sarr bu ñu nee maire Wari nga ne guy gi maire Wari Sarr ni suñu Abdou Karim Mbacké maire Wari Sarr bëgg suñu Fallou tey ñu gis fii nga ñëw fii safar gi di la nuyu di wax tamit sa wàccaay tamit ci safar gi waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad gërëmaat bu baax sunu yaakaar àdduna ak alaaxira si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom lañ ma tuddee yaa ngi may laaj ci lu ma sawar ndax bis bi bi ma ko waa kër maire Wari Sarr yi waxee moom it mooy koo xam ne dafa bëgg jàngkatu xasaayit yi waaye bis bii doon bis bu rëy ci man ni ko sama mag sama xarit waxee léegi guy gi ci lay taxaw tuuti rek sëñ Bamba moom lu ko waaye defal jar na ko waaye kii ñuy defal safar gi muy suñ Tuubaa dafa jaayanteeg yàlla ndax yaa ngi dégg sëñ musaa Kanaan Bamba yaa jar di xëy di gont ba far dee yaa defal yàlla lépp lu mu santaane suñ tuwi lii mu am nii bu mu yéem nit ñi dafa jaar ak yàlla bërëb rek yàlla jaar ak moom bërëb ndax man kaana lillahi kaana ku nekkal yàlla yàlla nekkal la suñ tuwi loolu rek moom moo indi coow li waaye du dafa mooy politikal boppam déedéet yàlla mi ko bind moo ne ko boo jaareek man fi nga bëgg a fi fi ma la jaarale ma jox la lu ma joxul kenn mooy illaa yaxaadallahuma lam yakku ni wala yakkuunu abadan li mumkin di leen ñaanal yéen nag waa télé bi ndax lii ngeen di def yombul di ñëw ci bis yu mel nii waaye nag yéen diine leen ñor moo tax yu mel nii bu ngeen ci ñëwee du bett kenn da ngeen a bëgg lu baax xam lu baax di ko def di ko wax ñi nga xam ne nag ñoo ma fi woo ni ma bu télé bi tàmbalee nanga nga jël nan la nan nan la jël nga def témoignage wax lu baax ndax wax lu baax ayut loolu rek a waral ma dugal ci sama kàddu waaye kii ñuy liggéeyal di ko defal safar gi muy Sëñ Tuubaa danañu bokk fay ñun ñëpp yàlla nañu bokk fay Mère Waly Sarr nag moo ko waa këram gii lii ñu def duñ ko réccu te Sëñ Tuubaa kenn du ko lebal di perte Sëñ Tuubaa loo ko liggéeyal suba ba ngoon jot dana la koy fay fa mu la ko war a fayee maa ngi ziar ñoom Ibrahima ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy def safar gi te waxoon ma safar gi ak ñoom xaadim ak ñoom ñëpp samay xarit la ma buñ ma fi wowul woon du ma fi ñëw waaye yëg guñ ma yëg ak bëgg guñ ma bëgg moo waral ma bàyyi li ma doon def yëpp ñëw fi daan wa rahmatan wa baraka minallahi yal nu yàlla defal tawfiix defal ñu jàmm safar yi après a ah, ans ci ginnaaw la commencé am doole commencé siiw dañ ko doon def mel nii ngoon di ay xel kafe ngoon di tax doomu adama ñu naan ñoo tey safar la yor 18 safar mais léegi ñu dem ba léegi gis safar gi léegi comme ni ñu koy dundee magal lu dañuy rek mu am ci xam nga sama bis bi saa yu ñëwee day feeñ sax ci néegi àjjana yi ak ci këru àjjana yi saa yu ñëwee rek neen dañuy defaraat di laaj lan moo xew ñu ne bis suñ ba am àdduna moo ñëwaat bisu suñ tubaab ba daan am àdduna moo ñëwaat kon 18 safar li ci yéeme mooy tey bu lakk amoon maar détaali mhm. booy woo sàppur 18 ngay bës neel benn mu ne ginaar ba ci giléem mhm. ginaar ba ci giléem ñaari tànku ginaar mhm. ñeent tànku bëy ñeent tànku xar ñeent tànku nag ñeent tànku giléem boo ko wàññee 18 la lay jox kon suñ tuwaa léppam baatin la léppam baatin la safara li tax mu am doole mooy dani sama tey ju nekk day gàcceel sama démb Sëñ Tuubaa nee na yàllaa ma defal sama tey ju nekk day gàcceel sama démb moo tax safar waxuma la doole ji mu am day gën a yokk suñ Tuubaa ay mbiram day gën a yokk ndax nee na saa yu 18 safar ñëwee may yi ma yàlla mayoon da koy gën a dolli moom suñ Tuubaa moo ko bind may yi ma may yàlla mayoon saa yu 18 safar ñëwee rek da koy gën a dolli kon kay ay mbiram amul arrière looloo waral safara day gën a am doole suba ci dimanche bi rek suba ci samedi bi rek ak ginnaaw suba ci dimanche bi liñ ma wax man ci ay safar mënuma koo jàng tey jii rek maa ngi war a jàng fu bari ay safar kon bisam chaque jour day gën a yokk waaye du wàññi waaye yéen ñi tamit yéenay gën a may doole ñiy def safar ndax ñiy def safar bëgg nañu saa yuñ ko defee ñu wane ko ci télé bi ba nit ñi xam ni mbirum Sëñ Tuubaa day gën a avancé waaye du arrière nit ñi jàppoon nañu masaalikul jinaan bi mhm. day wàññi doole safar yi ndekete murit ñi tey lañ gën a ràkkaaju da koy dégg ñu naan billaay masaalikul jinaan bi jàpp na leen ba fi mu ne est-ce que doole ji nu amoon daaw mhm. danañ ko am ren ndekete reenay dàq fii ba dimanche mooy tëj tëjteloo safari dimanche mooy tëj safari mhm. dimanche rek li li war a am ci safar kenn xamul ni mu toll man bi ma demee laayeen yoof laayeen ñuy def ay safar laa laa génn ci affaire yi nag ci laa nee nag ndekete murit rek bëgguñu lu baax ma fekk benn benn njaago muy muy muy raxas ci nii keroog bi laayeen yi di safar benn njaago laa fekk muy raxas ci nii ma ne ko def lu la indi fii mu ne ma li ngeen bëgg lañ bëgg keroog loolu la ma tontu li ngeen bëgg lañ bëgg ma xam ni kon ndekete Sëñ Tuubaa ay mbiram lim ne xam jami alwara yàlla jéggalal mboolem luy noyyi kon tubaab génnu ci njaago génnu ci kenn génnu ci irxam jamee alwaraam mooy luy noyyi rek kon suñ tubaab ndekete yërmandeem ji mm-hmm. dafa daj fépp kon yéen waa télé bi yal na yàlla fa leen cat mm-hmm. guddal seen fan te wéral leen mm-hmm. boole leen ci milliardaire u Seydunaa Muhammad yi yàlla leen ko suñ borom defal sama xol sedd na bég naa. jaajëf jaajëf